coow li bëri la loo ñu mën a wax ci loolu. ci kanam moom la ñuy corné te dëkk bi ku tekkiwu dara kenn du wax dara nit ñi ñaari leen dul xas ñaari leen dul xas ab néew ak ab dof képp kuy nit tekki dara bëgg lu baax ñu unuñ la gàllankoor bañ nga yegg waaye yow mi ñu gàllankoor nag yaa am fulla ak fayda ba yegg fi nga bëgg yegg. ñooñu loo leen di wax yaa ngi jàkkaarloo ñoom. ñun baal leen ñëpp jéggal leen ñëpp. waaw man li ma rek bisu mbégte la rek mu yëgal ñu ko ñun ñëpp ñu ñëw teew rek. comme ñëpp rek. ah. noo gisee mbooloo bi. waaw yàlla. bu xawle bëggul lu ñu wuy la. bu xawle bëggul lu ñu wuy ci la. bu xawle bëggul lu ñu wuy la. lëkkale ci facilité yu bëri bëri daal dañoo teew ci bis bi ndax képp ku xoolee boo sañoon ni ñëw wuyu ci la rawatina nag ngay ab doomu aadama a loolu dafay nit ak ki ñaan moo tax loolu moom sa digganteeg Ablaye Diop. moo yàlla moom moo wax ci alquran ne julli ay mbokk lañ a ñëpp ñu wax ci doon la ilaa rek sa mbokk la su xewlee bu lu ko yëgalee war teew rawatina mu woo la jabar ji woo kon da nga la rafet mooy nga teew donte amuñu jot amuñu temps mais mënuñu ñàkk a teew ci bis